Bienvenue sur Salam Vision. Siteu Papa Sow combat la boo xamante ni combat bu neex la combat bu abartu woon la ñu tëggaat ko ñu ñaan yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm muy dimanche le 6 yàggatul suba la ajjuma bi ñaxee benn bisi ci dox yàlla nañ ci yàlla yóbbu di nuyu le promoteur bu gëtu du tëgg muy Mansour ak papam euh, di wax ne Lamine mm, combat bi jàmm gën caaroy géej jàmm gën pique si Kambaaw Lamsaar tabla Tiwaawan ñëpp ñu koy préparé ndax seen doom moo xew la muy Siteu ñëpp nekk ci ginnaawam nag ba ci ñun ñii di bàyyam mu jox ñu cër respecté ñu euh, di wax ni Papa Sow lenn rek la am ci combat muy dóor song ñëpp xam nañ ko song ala kulli xaal day songu Siteu xam nga bu xeexul ak moom day daw songu Siteu kon liñ ci mën a analyser rek mooy njool la ak ndax ma te ñoom ñaar ñëpp a xare Papa Sow loo ko xam-xam tëlewul a mën a bëri mais mi ngi bëri koo xamante ni xale la. xale la boo xamante ni màgg na ci màgg na ci mature màgg ci doole màgg ci lépp mais avant tout di remercier CNG grandeur bi ñu def muy tëggkat bi ji li booy bi ñu baal dëgg yàlla di ci remercier tamit El Hadj Mansour Mbaye ndax lii mooy àdduna xale bi juumte la defoon tey CNG ñëw jéggal ko ci grandeur am ñun ñëpp ñu jàpp ci ñaan ba CNG të kiyal ko ndax booy bi njëglaale ci Siteu di ñaan nag Siteu yàlla daan Papa Sow jël bu set bi ci. bu amul benn werante man damay ñaan sax dóor mu daanu laa gis quoi waaw mu daanu laa gis ndax am na point yu may waxtaan ak Siteu fan yi sax ci pour dóor mu daanu bi xam nga mais tamit su fekkee ni tamit daan bi moo gën a simple na ko daan rek daanu simple ndax mag la moo gën mu koy dóor di muy gën a jëm comme dafa jëm mag masuwaar yi di yàq koog yooyu xam nga di wax ni ñoom ni ñu préparé combat bi rek ñoom waa waa parcelle fekk nañ ci waa. Caaroy Géej ak waa Lamsaar ak waa Diamaguène ndax ñoom Tidiane Faye ak ñoom ñëpp xam nga ñoom Tafandoo ak ñoom ñëpp ñoom caat bi ñoom ñëpp di ñaan jour si daal fair play nag yàlla def ci jàmm ndax ñaari bëri ñëw ñëwee bëre amoon nañ combat mu yàqu te suñu ñëwee ba ci bis bi nañ ñaan bés bi egg ci jàmm ñu supporter Siteu ñëw ci jàmm supporter Papa yi ñëw ci jàmm Siteu daan Papa sew jël bu amul benn werante ñu ñibbi ñibbiwaat jërëjëf.